asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñuy seetaan e, fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew te di ñu topp fii ci seen seen bii di MKTV muy Muxaddamatul Xidma TV wala GMT ak mboolem ñi nga xam ne lëkkaloo nañ ak ñoom ak fuñ mën a nekk ci xeeti support yi ñu xam ne ci lañuy ñuy tasaare jumtuwaay xibaar yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen ndokkeel di leen nuyu jiital nuyoo bi seex Cheikh mu Muntaxa di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko di am mbégte bu baax di ñëwaat ci seen jataay bi nga xam ne mooy émission gàggantiku bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma da koy def di ko jaarale ci seen yi nga xam ne moom lay jëfandikoo di ci ànd ak ay boroomi xam-xam euh, kiñ ci gën a ràññee nag te mu sawar ci lool macha allah di borom xam-xam bu tabee ci xam-xam ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko muy sëriñ Mbacke Abdourahman ñëw fii ci Daaru Salaam daam ngir fas yéene àndaat ak moom suñ benn jataay ci jataay yi gàggantiku yi bokk yi nga xam ne it ñi ngi ñuy yónnee laaj yi ngir numéro yi ñu joxe woon yu ci bëri da eh, émission bi day am ñoo xam ne dañ koy dagg di ko dugal ci groupe yi ñu koy dégg faneen di laaj fan lañ koy toppee ak yu demee noonu kon émission bi nga xam ne daal ñun moom la ñu boo ko bëggee di ko saa su su duggee rek nga am ko da ngay abonné ci Moukhaddamatoul Khidma TV muy MKTV wala GMT TV ci YouTube su ko defee émission buñ dugal rek ci saa su danga ci jot mbokk yi nag da bëri ñoo xam ne ñoo koy daggaat di ko dugal ci eh, groupe yi ngir nit ñi mën cee jariñu ñooñu it ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen gërëm su ko defee tamit ñu ngi sant mbokk yëpp yi nga xam ne ñu ngi yónnee ay message di ñaanal sëriñ bi eh, aw yiw di ko ñaanal gudd fan yàlla yàlla nangu seen ñaan yi Euh, su ko defee moo tax émission bii jàll ñu ngi doon wax ci julli ci njëlbeenug julli lañ doon waxtaan joxe woon nañ numéro yi ngir nit ñi indi ay laaj laaj yooyu nag ñëw na xaw a takku moo tax euh, suñ émission tey incha allah dañuy fas yéene jox sëriñ bi laaj yi ndax bokk jullit di yàkkamte nañ ko leen tontu laaj yi ngir mu tontu laaj yi nga xam ne moo moo fi su ko defee ci biir loolu ñu ngi nuyu sëñ Abdou Khadir Bousso mi nga xam ne mooy réaliser émission bi ak sunu caméraman yi ñu àndal suñ bàcc ba ak mbokk yi nga xam ne moom la ñu àndal kon dañuy jëkkante ak waxtu bi rek jox Serigne Mbacke Abdourahmane mu euh, euh, nuyoo ñu jublu ci laaj yi incha allah. aouzu billahi min ashaytani irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aleykum salaam wa rahmatullahi maa ngi lay nuyu di nuyu Sëñ Abdou Khadir ak mbokk yëpp ginnaaw bu ñu siyaaree Cheikh Mahamadou Mountakha ñaan sunu borom gën koo sàmm gën koo dëgëral di siyaare waa daairatu muqaddamatul xidma ci njiitu sëñ Afe Busu al imam di rafetlu seen liggéey siyaare mbokk yi nga xam ne yëpp ñu ngi topp jataayu xam-xam bi di leen ñaanal yiw àdduna ak àllaaxira di sàkku ñu ñu ko ñaanal barakallahu fika taala allahu baqaaka fina barakati xaadim rasul jërëjëf sëriñ bi kon mbokk bala ñoo tàmbali rek képp ko am laaju diine ni ñu koy waxee rek na ko yónnee ci whatsapp 77 531 91 98 bu defee sëriñ bi dana ci jot ngir mën laa tontu bi suñu laaj bu njëkk mbokk bi dafay laaj mu ne eh, lan ngay laabire ki nga xam ne daal bëgg na di jàng alxuraan exemple ci biir koor gi waaye jàng alxuraan ci yax bi jafe na ko bu ko doon def par tuuti la ci mën a jàng mën naa bañ a wàcc kaamil bi ci biir koor gi waaye nag su ko dee jàng ci tarjuma francais ci ci ci langue français xëy na ci lay gën a gaaw ci moom maanaam muy laaj jàng ko ci langue français ngir di mën a jeexal kaamil bi ci koor gi ak jàng ko ci lii nga xam ne mooy yax biñ ko bindee te te te tuuti la ciy am ñaar yooyu lan moo ciy gën ci moom. li ma leerul mooy ndax daa bëgg a wax ñu bind ko ci xuruf latiniya. waaw nga xam ne moom mënta lire arab tarjuma bi la wax sax nag maanaam nga xam ne français bi ñu koy jàng day xaw a xamaale. wax waaw waaw alxuraan nag moom ab yax la boo xam ne alxuraan la. arab la maanaam kooku day mel ne day tekki tafsir lay jàng. mooy jàngul alxuraan bu fekkee alxuraan tekk ci beneen lakk la. mu di ko jàng di xam maanaaya kooku tafsir lay def hmm. waaye jàngul alxuraan moom yaxub alxuraan bii la ndax alxuraan yax bi mu jaradu jàng gi jaamu yàlla la hmm. doonte xamoo li muy tekki wàcce kaamil yi nag du farata hmm. yaa am solo mooy nga jàng aqra ba tey sax waaw léegi mën naa jàng lu mu mën a jàng ba noppi nag dem nag ca tafsir ba lu mu mën a dolli ko ci ay maanaam def lu ma koy xelal daal mooy ne boole ñaar yëpp na fexe daal ba yaxum alxuraan bii lu mu néew néew hmm. na xam ne jàng yi mu ko jàng bi ci des Ibrahima salaam waxoon na ne kii jàng alxuraan mu jafe ci moom muy sonn lool ngir jàng ñaari tuyaaba ndax noonu forcé boobu fexe ba jàng lu metti metti mu fexe ba di ko ijjantu hmm. ba jàll hmm. loolu yiw la macha allah kon na ci def lum man bu noppee nag dem ubbi tafsir jéem a xam maanaam waaye tafsir kese moom duñ ko tudde jàng alxuraan ñu mel ne téere tafsir boo demoon dañuy wax ñuy fiq dañuy tere laal ab musaf te jàppoo waaye terewuñ laal laal laal te tafsir ndax daal loolu du musaaf ndax waxi jeer waxi waxi judul yàlla lu dul wax yàlla da caa nekk te musaaf mooy loo xam ne wax yàlla nga ci nekk wax yàlla jëpp nga ca waaye wax yàlla dong la lépp lépp loolu la ñuy tere ko laal te jàppoo jërëjëf laaj bi ci topp xaw naa ni roog bi bi bi jàll moom daf ne moom daal dafa dégg ñu ne suratul kahfi jàng ko àjjuma dafa am solo moo ne ndax dana dana dana man maanaam wut ab son boo xam ne Euh, day dégg kàddu gi di ci topp ngir mën a jàng suratul kahfi lu mu wax mu wax ko te mënut a jàng euh, yax bi dëgg-dëgg. ah loolu bu fekkee ne leer na ko ne. Euh. li ki muy déglu wax ma ngi koy jàng nam mu waree. boobaa jàng na alxuraan. waaye nag bu fekkee daa yam ci déglu ko moom déglu la def jàng alxuraan nag la ñuy wax suratul kahfi guddig ajjuma wala bëccëgub ajjuma dañoo bëgg ko ci jàng itam salaam moo ko wax. déglu gi moom tekkiwutum jàng. tekkiwu jàng jaamu yàlla nag moom. ndax déglu alxuraan dañ ko santaane waaye nag. du ndigal li moom ndigal li mooy mi jàng uh-huh. kon bu ma nee muy wax muy wax ba mu àgg jàng na ko uh-huh. ba nag am na tiyaabay déglu gi it nag uh-huh. jërëjëf kii dafa laaj mooy ndax dara dagal ki nga xam ne dafa baaxoo naafila njëkk fajar uh, naafila googu muy njëkk muy njëkk fajar ndax dana dana dagan ci moom mu dëppale ko ci diggante fajar ak salaatu subhi maanaam diggante ñaari rakkay fajar ak ñaari ay suba naafila googu mu baaxoo naafila ndax dana dagan mu naafila ko ci diggante boobu dana dagan bu fekkee ne ngànt tax mu def ko hmm. maanaam li ñu bañ daal mu jublu ko ndax bu fajar xasee jot dañuy tere naafila guddul ñaar rakkee fajar hmm. maanaam fajar bu xasee jot hmm. ñaar rakkee fajar lañ fa war a naafila nag ki amoon ab dog bu julli ci guddi gi bis ñëw mu biddanti waxtu woowu mën na ko waaye la bañ mu dàkk ko mel ne moo jublu ni ba fajar jot bu fi def geneen naafila gudul ñaar rakkee fajar dañ koy tere jërëjëf barakallah kii moom bi sax guddal na ko lool ci ni mu ko doon expliquer waaye li mu bëgg a wax rek jubluwut mu ne ndax dana daggan ci jigéen gi maanaam xeeg bi jeeg bi nga xam ne amoon na boroom kër waaye dafa am ay ay doom yu mag waaye ñëw na ci moom ne ko daal dama bëggoon nga fasal nga fas suñ diggante ji fas suñ diggante dagganal diggante bi nga doon sama boroom kër ndax mu ne eh, soxna soosu dana daggan ci moom mu maye boppam Euh, ci lu ndigalul kenn ci ndigalul boppam ndax sëy boobu dina wér wala du wér ci lislaam sëyam laat laa nikaaxa illa bi wali mhm. maanaam ab sëy du am mukk ci lu dul wali maanaam jigéen du maye boppam ab jaambur du ko maye te mbokkam ne ko mhm. jigéen amul fenn fu may boppam ab jànqakub jeega ci yam li mu wax ni bu xasee am doom doom yi ñooy mhm. ku bëgg a takk soxna si ay doom ñoo la koy may wala doom yi délégué keneen may leen waaye maye bopp moom buñ ko fasee luñ faste fasuwut la luñ faste fasuwut la lislaam am fu maye jigéen joo xam day wax ne àgg na barab sàngam kon man naa maye boppam déedéet hmm. jigéen du maye boppam il faut daal mu ndigalul kenn il faut mu am ko ko fas même ba ci jigéen ji bu amoon gone yoo xam ne mooy seen kilifa dañ ko xamee fi nga xam ne kilifa yi ñu jox ay doo ay gone seen waajur jox leen ko hmm. jël kilifa te fi teg seen loxo ku ci dem mat dem kërit soxna soosu day wut góor gu mat sar sar matal sarti waliyu ne ko mayal ma diw maanaam ñi nga xam ne sa bàjjan lañ ci yi daal sa bàjjan kër fi ne yooyu seetlu kuñ <laughs> eh. wax day woo góor goo xam ne sarti kilifa daje na ci moom kalaf la julli la yëpp daje ne ko mayal ma ko hmm. ndax mooy kilifa waaye moom du ko fas kon du fase du fas du fas du fasal boppam ab sëy du fas sëy keneen moom jigéen mën na koo nangu nag maanaam mën ngay ñaane soxla ci barab yebal sa sa jigéen mu dem nangul la nangul la fas gi fa nangul ñu maye mu nangu lu mën a nekk hmm. waaye li mënti nekk moom moom mu maye xam naa li war a leer ci ci ci jeeg yi jeeg yi dem kër ba ñëw wala jigéen ñi daal hmm. dañoo tàmm di leen dugal dëkkal ci seen nopp yi jigéen ju dem ba ñëw mooy maye boppam loolu yaakaar naa ci nangu gee tax ñuy wax waaye du caagee ne xay na liñ bëgg a wax mooy bëgg wax mooy kiñ kiñ sañ a forcé maye ko ah. bàyyi sañ naa forcé ab jànq ku mës a dem hmm. ku mës dem kër bàyyi mën na ko forcé maye ko mooy maye ko te doonte gënam waaye koo xam ne dem na kër ba ñëwaat moom kenn du ko forcé di ko maye. faaw baayam amatul sañ-sañ ci moom di ko forcé. Mm-hmm. da koy laaj ba mu nangu mu door ko maye. waaye moom kilifa am moo te kilifa daa bokk ci ay sartab góor lay doon. Mm-hmm. foo ah, jigéen mm-hmm. jigéen moom. doo doomam kilifaam. bu jàllee baayam ay mbokkam ñu mbokkal baay ndey wala baay ay góor. noonu lañ ko ay bàyyi ndaw noonu lañ koy def góor ñoo ñi nga xam ne ñoo bokk ci gajo ñooy doon ay kilifaam bu ñu ne amul nag wilaayatul islam mën nañ ko ca maye maanaam dem jàkka ja ay mbokki jullitam maye ko boo amoon soxna soxna daa tuub te ay bokkam ñëpp di yéefar nga xam ne amul ci jullit ñi am mbokk hmm. kooku dañ koy maye ci wilaayatul islam mooy bu demee ci jàkka ji jullit ñi fa nekk bu ñu dajee ñooy doon kilifaam macha allah hmm. jërëjëf kii mu ne dafay laaj moom ndax dagan na ngay jàng alquran nga agsi ci sujjoot ndax dana dagan ci yow nga sujjoot sujjootu tilaawa dana dagan bu bu takk bu jant bi la nga gut bu timis naa xam nga dañuy wax ne sujjootu alxuraan naafila la mhm. waxtu yi ñu sañ a naafila ci lañu sañ a def waaye dañ mhm. ci settee mhm. boo door julli suba te leeraguñ nañ ñi mën ngaa sujjoot boo sëlmaloon suba jàkk ji rek tàmbali jàng alxuraan nga ne leeraguñ nañ ñi boo agsee ci sujjoot da ngay sujjoot foofu dañ fi tere naafila waaye bu xasee leer asamaan seet wecc tere nañ ko ba jant fenk ba jóg ginnaaw takku saa yi feeg dégg ba lang ba naaj wi tàmbalee sopp nga xam naaj wi weexatul foofu mën nga faa xasee ak foofu dañuy tere sujjoot jërëjëf euh, sëñ bi kii defee laaj mu ne lan mooy atteb ki nga xam ne euh, dafa dénkaane woon ci alalam benn million boo xam ne daf koo jël daal dénk ko kenn ci ay ay waaye nag mu ne ko bu ko dépassé teyil ma million boobu bàyyil daal ba ma faatu ba bañ may saraxal dañ ma saraxal ci juróom-ñaareelu fan bi su ko defee nga jël million bi ma la dénkoon nga def ko ci sarax si mu ne ndax loolu dana dagan ndénkaane loolu dana dagan ñu ñu wéyal ko wala déet waaw bu jubloo ci million bi saraxee nga xam ne togg ay ñam sarax ko ñu ko aajo ware mm, mm. loolu danañ ko mën a wéyal bu fekkee xaj na ca sulusu alalam mm. ndax nit bu faatoo moom moom sulusu alalam maanaam bu xaajee alalam ñetti xaaj moom benn ba lépp lu mu wax ne nañ ko ci defal dañ ko ci def buñ fayee bor yi def yëpp li ci des dañuy xaaj ñetti xaaj fekkee million booba mat na euh, matul sulus wala ëppul sulus te mu la wax di lu jaadu mooy nañ togg ay ñam sarax ku fekk fuqaraa ak masaakin yi mm. ba wax na amma bu dee aada ji ñu def ni moom du diine moom mm. sarax niñ ko defee fii du diine mm. islam santaane wugu santaane wu ñetti fan santaane wu juróom ñaar santaane wut ay euh, ñeent fukk guddi ak la saxoon mooy bu nit faatu lewa ay ay dëkkandoom ñooy togg ñam andil leen ba jaafar faatoo radiallahu taala anhu yonentu yàlla muhammad alayhi salatu daa waxoon defar leen aw ñam jox ko waa kër jaafar ndax am na loolu leen soxal mënuñoo togg di nga seeblaat bi ci desit lu mat a bàyyi xel sarax yii ñu def nii nit ki bu faatoo bàyyi ay gone yu ndaw yoo xam ne bàyleexaguñ ay ay ay jirim lañ alal ji seen bàyyi seen wajur bàyyi seen wàll ngi ci mm. te ñoom seen wàll kenn du ko saraxe kenn du leen ko mayal ku ko lekk-lekk nga alal jëriñ moo tax yu mel noonu mat naa bàyyi xel bu fekkee dañu nit day faatu rek ñu jël ci alal ja toggi sarax bu dee ay mag yoo xam ne baaleex na mm. ñoom ñëpp ñoo moom alal ji soo neexee jël ko daf ci ay ñam saraxal seen bàyyi fekk déggoo nañ ca fekk ñëpp déggoo nañ ci mm. waaye bu ci amee gone yi ndaw moom sañatuñ ko xale amaguñ xalaat ñoom ñoo moom teg lépp wut la leen saraxal leneen mbaa boog lu mu ci def ñu bind ko xam ne jël nañ ci alal ji nangam bu ñu miraas gën ko seen wàll ñoom mag ña loolu mën na bàyyi xel ndax ñooñu desu desu maye seen alal desu leen saraxel bu ci bu dee dañ cee jublu togg ñam saraxe ngir yàlla yool ba dem ci kafaatu baax na waaye léeg nag day mel ne leen la ay xew woote xew la daanaka nit ñu fee teew ñu ko aajowoo cëpp doonu ñoo xam ne ay aaj ñu soxla ñam lañ nga xam ne boo toggee ñam jox leen danañ sant ndax lor nañ jëm ci loolu hmm. bi ci si dañ cee boole yoo xam ne soxla ko hmm. léeg-léeg jaxasoo ba fay am lislaam nangu ko hmm. tax yooyu jàpp naa si la lu mat a bàyyi xel macha allah boo gisee kilifa yu bari def bu nit faatoo ñu santaane nañ ko nañ yemale lépp mooy nañ ko ñaanal jaale ndax jaale lañ santaane mooy ñëw fekk ñi faatu leen nga defal leen xamal leen ah kii kat yàllaa ko doon moo ko fa indoon moo ko yóbbu lu yàlla def moo gën muñ leen te nangam déggal leen ni muñ loolu mooy jaale jërëjëf sëriñ bi kii dafay laaj mu ne ndax dana dagan ci nit ki mu mu sangu cangaayul janaba euh, daal di wéral loolu wéral cangaayul janaba ba tax mu dem julli ji ajjuma rek te moom amul ameewul janaba xëy na li mu wax mooy sang-sangaayul janaba te ameewoo janaba ndax dana dana dagan ci nit ki mu julli ci ajjuma xam naa dafa dégg ci suñu waxtaan wi jàll mm-hmm. nga wax ne euh, xëy na dégg na ko ci waxtaan yi nit ñi rek ne mm-hmm. ajjuma am am na ku doon wax ci benn ba fan yee xam naa loolu la dégg ne ajjuma dee su ko jàppal dañ koy sangul loo tax xëy na mu ne ndax dana dagan ci nit ki mu sangu ca ngaayul ba te yéenewu ci ajjuma maanaam ca ngaayul janaba la te jana jana baawut dem julli ci ajjuma noonu ndax julli gi dana maanaam wax ne ajjuma dañ ko jàppal dañ koy sangul nag jar na tey de hmm. ca ngaayul ajjuma dañ koo sopp hmm. te jàpp ci ku toj lee la hmm. moo tax bu dee sangu ajjuma mën na caa jàpp jàpp moo da cay yéene yëkkati am toj su waa ca la dana ci mën a julli waaye bu sangoon cangaayul ajjuma kese jàpp ca cangaay loolu mënut a julli ajjuma loolu bàyyi xel hmm. maanaa sangum ajjuma du farata dañ koo sopp sunna la ce hmm. ci am toj moom farata la ci ab jàmm hmm. maanaam sunna nag mënut a taxaw taxaw farata safaan ba maanaam masal tey bu doon cangaayul janaaba moom bu ko nit ki sangoo dafa yore janaaba sangu cangaay loolu yóbbaale na jàpp bu noppee mën na caa julli ajjuma nit ko xam tey bisu ajjuma waxtu mi sangu daa yore janaaba mu dem sangu yéene janaaba hmm. jàpp na ci biir jàppati biir moo ñu teem jàpp mi ko sopp rek waaye cangaayal janaaba la sangu ba set laam te yéene wu ci cangaayal ajjuma na caa waaw boobaa sunnas sangaay ajjuma moo ko raw moom la du am waaw waaye kooku ligganti moom mooy na xam ne janaaba lay sangu waaye mu yéene waale ci ajjuma hmm. boobaa dana hmm. waaye nag ki nga xam ne janaaba amu muy sangu ajjuma kese moom dana jàpp ci biir njàppum farata mbaa bu noppee mu jàpp bu dul loolu du mën a julli ajjuma macha allah loolu leer na macha allah mbokk mi dafay dafay laaj mu ne ndax dana dagan ci jullit bi wala nee na nga wax ko kuñ raw ci jullit ñeenti rakka maanaam ñeenti rakka ndax su ñëwee di fay ñeenti rakka yi fekk imaam dafa jàngoon ci ñaari rakka yi Fatiha saar waxtu wi imaam di jàng ci rakka yu mujj yi mu ànd moom day jàng Fatiha rek ànd ak moom wala moom sax dañ ko rawee woon Fatiha ku saar rek dafa jàpp ne ci mu ànd ak imaam la ko war a jàngee. loolu maanaam dañ ko war a ñaar rakka ci julli ñeent rakka waaw ci julli ñeent rakka waaw moom ñaar rakka yu mujj la fekk moom na xam ne mujjub jullik imaam la fekk imaam lay àndal waaw sax daa ne ku dikk jàkka fekk ilimaan na nga na fekk ilimaan def la muy def mhm. rakka yooyu faate képp la ci jàng na ci jàng faate kepp bu imaam toogee ba taay ba sëlmal mu jóg kabbar jàng faatiha ko saar bu den gee masalan day jàng faatiha ko saar ca kaw beral ko ruko sujud jukaat jàngat faatee ko saat ci kaw bu doon tisbaar mu yelu ko waaye na xam ne rakkaa yu njëkk ya lay fay hmm. te rakka yu njëkk ya moo amoon faatee ko waaye yi mu ànd ak ilimaan moom mooy rakkam yu mujj da caa jàng fatiha képp ni ko ilimaan jàngi hmm. bu dee timis tamit maanaam yam fekkoon imam beral ko bu koy yooyu lay beral rek waaw bu doon timis masalan benn rakka bi mu fekkee day moom benn rakka la fekk ànd ilimaan kooku bu ilimaan sëlmalee bu jugee di indi benn rakka jóg taxaw buy jóg du kabar jàng faatee ko saat ko toog taaya ndax am na benn rakka ak ilimaan bii di ñaareelam bu taaya ba noppi jógaat indiwaat benn rakka jàng faatee ko saat foofu li rek mooy ilimaan daa ñaar rakka yooyu te moom du ko sësale ndax daa war a boo amee ñaar rakka daa war a toog taaya benn la ànd ak ilimaan benn bi mu defaat mooy rakkaam bu njëkk waaye dafay toog taaya ngir mu ñaari rakkaam la su ko defee bu taayee ba noppi jóg indi beneen dàkka jàng fàtte ak saar noonu hmm. la ko defee jërëjëf sëriñ mbokk mi dafay laaj mu ne eh, daanaka suñu ñaari laaj moo ñu des sax dafay laaj mu ne eh, lan mooy àtteb ki nga xam ne eh, dafa am oto ndax dana dagan ci moom maanaam mu luyee oto bi wax ko ne ko danga may jox nangam bët bu set waaw wala mu jox la bitig ne la dal weer wu jot lii nga may jox maanaam xëy na dafa bëgg a wax de ndax dana dagan ci nit ki mu sas nit ki muy liggéeyloo ci oto wala ci bitik waaw xam naa bu dee oto moom li mooy mu luye oto bi waaj yow daal jox naa la oto ñaari junni laala ko luyee par bis hmm. moom nag la muy def ci oto bi moo xam da cay dem wala da ko day dem tëdd ak moom di nelaw bu noppaloo bu sonnee hmm. wala da ciy da ciy tukki waaye daal na bi set la jox dix mille hmm. li li ñuy tere la mooy nga ne ko jëlal oto bi dinaa la fay weer nangam waaye bis bu set andil nangam mooy loolu xaral la ndax wooru ba xam dana ko am de waaye soo ko luyee nag ki ki luyee moom daa am mel ne daa am soxla jël oto bi di fay luyaas léegi nag la def oto bi xam benn da da cay liggéeyaat wala da cay dox boppam loolu mbir ma nga ne am na bis boo xam ne xëy na day xëy lijjanti dem feneen waaye boo boppam la ma dem yóbbu fa ay client bi rek mm. anam googu la ñuy wax ne mu gën am ma boutique nag moom mm. bu fekkee daa chargé boutique daa am place am chargé ko dugal fa nit. Hmm. na koy fay weer. sañu ko wax ne ko weer nangam nga may jox li ci des yaa koy moom. ndax kooku ajiir la. ajiir daa war a xam ñaat lay am. Hmm. par bis wala par ay bis wala par weer. kooku li mooy nga ne ko jëlal dugal di jaay weeru dee ma fayal nangam wala ay bis gi dama jox la nangam wala bis lépp loo jaay nag maa ko moom. wala nga jox ko xaalis li ñuy tuddee mudaaraba jox ko xaalis. mu dem liggéeyi moom. Mhm. ngeen séddoo bénéfice. su boobaa nag da ngeen bokk di liggéey yaa moom capital bi waaye moom mooy liggéey. Mhm. ngeen juboo ci su ngeen demee ba le génne capital bi mu la joxoon. Mhm. bénéfice bi ngeen seddoo ko ci na ngeen déggoo. moo xam ne dañ koy séddoo nisfu nisfu wala da nga naan yaa moom kaar bi moom ñetti kaar yi li ñu xam la ngeen déggoo loolu la dagan na waaye foofu it jafe-jafe fi nekk mooy waaye ji liggéey bu perte du la fay bu amee bénéfice a ko bokk perte ngeen bokk perte. bu fekkee fay weer nga digg ak moom moom moom day jaay di la jox waaye bu fekkee da nekk mu daara ba nga xam nga jox capital muy liggéey mën nga koo jox un million mu mm-hmm. liggéey at am bénéfice su un million mm-hmm. ak un million bi nekk capital bi mm-hmm. day teg fee capital bi un bii nga xam ne mooy bénéfice bi ngeen di séddoo bu fekkee da ngeen juboo ci séddoo ko ci digg ba am na fi ñoo xam naa la dañ koy def ñetti xaaj nga jël benn bi man borom alal bi jël ñaar yi waaw buñ ci déggoo dagan waaye bu liggéeyoon ba at mi jeex amul dara du am dara te sañu ko fayu ko hmm. waaye du ko fayu ko ndax leneen gis ku yóbbu kaso nit ci ci ci ci mel noonu ah, ndax problème bi am mooy waaw na ay ay coonam atum yàlla liggéey na ko wax dëgg yàlla feree defu dara moo tax loolu loolu doy doy na ko métti hmm. yow it amoo ci bénéfice waaye nag kay it ay coonam daan dem ci neen euh, loo am suñ loo xam avis de confiance lañ koy tudde xam ku mën a yor bitigum nit perte na gis ku ci tëj kaso avis de confiance nga xam ne day naan ñaari léegi leen dañuy wax ne hmm. dañ jur wóoru day jàpp ne pertut waaw dafa xam nga dañuy wax fi ne ci fiq ne bor bu hmm. su tëj nit hmm. bor kenn du ci tëj nit bu la leeral di amul waaye nag mën nga koo tëj ngir wóorul dañ lay wax ne la ajjuma bokk na yi tax nit sañ a wuute nga ameel ay nit ay bor te sa melokaanu zahir mel na yor nga nga xam ne ñi nga amel bu ñu la gisee sañ ne la yóbbu ci yoon yoon téye la ba xam am nga wala déet te wóor na la sa diggante ak sa borom amoom comme ni mel fii rek ñu bari nga xam ne dañuy sol mu rafet fekk duñu yor dara waaw yow <laughs> mu defee da nga koo da nga koo fay nu mu dafay kooku bu ñu ci yoon yoon sañ na la tëj ngi wóorlu <laughs> eh. mais bu ko leeree ne yoroo dara da la war a bàyyi kooku dañuy wax ne ginnaaw moom xam na boppam leer na ko digg borom yoru dara tëj gañ koy tëj te bu génnee jullit ñu tëj ko sañ naa bañ a jullit ji ngir sutural boppam waaye bor kenn du tëj nit fekk waaye nag bu bu leerut ñu mel nii mën nañaa ah, moom kat daa wax lii waaye il faut ñu tëj ko kon gëstu ba xam wax na dëggam déet kii dafay laaj moom daal bëgg naa xam nan la ñuy génnee sac euh, asaka koo xam kii nga xam ne dafay commerce tey jaay ay téléphone wala muy jaay ay yére hmm. nan lay génnee asaka waaw kii jaay ay téléphone ak yére de bu fekkee ne bis bi mu tàmbali woon a jaay masalaan màggalu Tuubaa la tàmbalee jaay hmm. ba màggal gi del siwaat hmm. am na at bu xoolee li ñu yor ci xaalis lu jar xool marchandise yi fi des prix bi ñu koy jaayee. Hmm. mu xayma ko ci bu noppee boole ko lépp ne ñaata la bu matee nisaab bu matee trois millions deux cent mille am na nisaab suwaa da koy génne asak. day xool lim yor ci xaalis ci bitigam ak marchandise mi yor lay boole xayma li jot a jar. masalan tey fi ne ku amoon boutique den yor ko at toog at di jaay dérloo dara. Hmm. doo génne asak. Hmm? faw dara jar ci moom. pour asak doo xayma matériel ba ngir jënd. dara amugoo dara moom. faw faw dara jar ci asak léegi nag bu toogee at am lu jar am lu jarut day xool na li jar masal mu xool ko mu ne am na fi un million cinq cent mille mm. marchandise mi bu jaroon tey mm. dana ma deux million mm. kon am nga trois millions cinq cent mille nga ne diw ak diw ameel nañ ma xam naa danañ ma fay am nañ xaalis te ñoom danañ fay bor mat na un million danga ko ci boole boole ko ci xool na yow bor yi nga ameel ñaata la nga génne ko bor yi moom da nga koy génne yow yi nga ameel loolu du sa ndax boo yoroon juróom juróom million waaye amee nag borom 2 millions. Hmm. ñetti millions nga am. moom quoi dëgg la. kon li nga moom ngay loolu na ngay diviser 40 lu ci génn mooy asaka ji. donc diviser 40. waaw yoon yu gën a gàtt ci génn asaka bu dee xaalis moom. Hmm. alal jëpp ngay boole diviser 40 lu mu la jox mooy asaka ji. 40 bi daal ngay génn waaw. Hmm, macha allah loolu leer na kii dafay laaj mu ne eh, ndax jullit bi dagan na ci moom muy liggéey ci église yu mag yi am na ñoo xam ne nee na dañ leen di embauché. ci cathédrale yu mag yi église yu mag yi ñu fay nekk di liggéey ñu leen di fay weer ndax loolu dana dagan ci ab jullit église bu mag bu ndaw hmm. liggéey ci dagan ab maçon amul droit ci bu dee jullit tabax ab église hmm? waaw sañ daa jëflanteeg ñi duti jullit ci hmm. en tant que ay nit ngeen jëflante waaye lépp loo xam ne day dëgëral seen diine l'islam daal tere nga jàppalante ci ñoom en tant nit nag ngeen bokk di dund nekk ay dëkkandoo di xewle ay ngénte ki ci rek nangam bokk adduna mën ngeen ci yooyu mën ngeen ci dimbalante bu amee këram gu muy tabax la mën koo tabaxal fay la mm-hmm. soxla mën nga ko mën na law yooyu nga yóbbu waaye bu ko yóbbu église bu ko tabaxal ab église mm-hmm. lépp loo xam ne luy dëgëral diineem la dee su ko ci mm-hmm. jàppal ndax loolu taawun al ismi la jërëjëf euh, mbokk bi sax laaj jo xam naa ne moom yàkkamti woon na ko loolu sax ba ma yónnee la ko moom dafa ne dafa am benn société bu muy liggéeyee boo xam ne Euh, li ñuy liggéeyee ci société bi daal mooy denc ay bagages maanaa ñoom dañuy ñëw di denc ay bagages ñu leen di fay bagages yooyu la ñu fay indi nag waaye nag am na ñu ñoo xam ne léeg ñoom sàngara la indi di leen ko dénk mu ndax euh, sagam ña ngi fay dénkaane sàngara moom jullit bi liggéey ci place boobu dana dagan ci moom wala déet. waaw moom day denc sàngara daganul moom bu fekkee ne daa am ñu ñu ko seqal. buñ accès ba indi lu ñuy denc mu sàngara moom moom ci bu mu ci doon dara bu mu ci doon dara moom amul droit moom yàlla rëbb na ci fukki nit ki koy naan ak ki koy jaayak ki ko yenu di indi ak maanaam ñi jaar ñëpp ba ci lislaam sax lislaam daa waxoon ne ku gëm yàlla gëm bis ci taabal juñ teg nii ndab sàngara ne ca bu fa toog mm-hmm. doon ti naanoo bu fa kon moom dañuy tere jàppalante ci genn anam kon bu fekkee barab bu ñu kii buñ indee bagage yoo xam daal yu dagan la moom sañ na ko denc bokk ci ñu koy denc waaye bu dee sàngara moom. bu dee sàngara moom la fexe ba effacé waaye bu fekkee contrat bi moom sañoo kii moom. waaw nag liggéey ba du dagan moom. Ah, ah. ndax wattu sàngara daganul moom. Hmm. maanaam benn liggéey bu nit liggéey ci sàngara di ko yombalal ñu koy naan daganul. Hmm, hmm. barakallah jërëjëf sëñ bi xam naa ne laaj boobu moo doonoon suñu laaj bi mujj euh, ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal di la bàyyee kàddu gi nga tàggatoo ak mbokk yi lay seetaan. jërëjëf sëñ laat yéen ñu ngi leen sant bu baax di sant mbokk yi nga xam ne ñoo am yitte seen diine ñor leen ñuy topp jataay yi di yónnee ay laaj mhm. ñaan yàlla defal leen tawféex defal leen taysiir lu am solo la mhm. ndax diine dis ko làmbatu te it nag kersa ci diine nit lu mu xamul da koy mhm. euh, ndax mooy tax li ngay jaamu yàlla man ko nangu borom bi subhanahu wa taala kenn du ko làmbatu li ñu koy defal bañ ko ko làmbatu moo tax mu yebal ay yonent jox leen téere wax ñoom sax duñ fetal kon nag diine ji lépp luñ ci def dañ ko war xam kon am na solo lool li nga xamul nga laaj ko ñu leeral la ko nga dox ci ak ak lu leer mhm. yàlla nu yàlla boole dimbali defal ñu tawfeex nangul ñu yu baax yi ñu def yëpp mhm. suturaal ñu ñu ngi lu ñëpp baala ko ñëpp suñu blaat mhm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu sëriñ Mbacke Abdourahmane yow tamit ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax suñu borom gën laa dolli kattan ak wér ndax wax dëgg yàlla tabe nga ci sa xam-xam lool coono yi lu mu bari bëri su laaj yi dajee wala nga war a nga war a gàggante ab tomb da nga ci sawar lool kon nit ñu ngi lay ñaanal suñu borom mu kàttanal la te gën a dolli sa wér gën a leeral sa dënn ba nga mën a joxe li nga xam ne yàlla baaxee na la ko ci xam-xam di sant it bokki jullit yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ak fu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di leen ñaanal tawfeex ak taysir seen émission gàgganti ko kon fii la ñuy yam incha allah dig leen beneen jataay boo xam ne dana amaat ci weer wi di ñëw incha allah ñu ngi sant bokk yi nga xam ne ñoom lañu àndaloon muy Serigne Abdou Khadir Bousso Serigne Bàcc ba ak sunu beneen caméraman bi sëñ alaaj jaañ waaw su ko defee jox leen dig daje rek ci numéro bi ñu leen wax léegi képp ku ci yónnee ab laaj rek ci whatsapp euh, danañ la tont muy 77 531 91 98 wala nga yónnee ko ci numéro 78 euh, numéro 78 678 57 66 boo ci yónnee da nga da da nga jot da da da dañ la mën a tontu ci laaj bi. ñi ngi santit sëriñ Abdoulaye Lo mi nga xam ne moom la ñuy ñuy jàppale ci liggéey bu baax di leen sant bu baax di leen gërëm asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam